Thank you. Mohamed Sylla mi amaloon sorti fii si Touba ngir nag ñaawlu doxalinu parti bi moom day Moussa Thioune moom it di njiitu mouvement di jàppale président Macky Sall di responsable politique si Benno Bokk Yaakaar yamal na ko place am démonté na ko benn par benn si mbooleem ponk bu mu yëkkati ngir ñaawlu doxalinu APR wala sax yenn si ay kilifa yi. parce que fii jarul njiit ni ma koy waxee mooy jërul xëccoo jiite. dëkk boo xam ne parce presque deux millions d'habitants kenn mënu leen jiite. Touba nag bu dee am njiit bu amul njiit di moom Mouhamed Sylla mooy jox leçon de morale ak lu ñu yor a def ak lu ñu def du ñu jox leçon de morale tam ci ki def ak ki defut ñi xam ne sédd leen fi ceeb bi di responsable di ay kilifa ñoom loolu lañu am moo tax ñu séddale ko kon moom mi xam ne amul ceeb amul lu mu séddale la mu am la mën a séddale ak la mu mën a wane mooy ay photo yu maan ak président ak ay vidéo ñun ñi sunu umra bi ñu demoon gis nga ni mu demee. mais gis nga ne nit kilifa gi ñu àndal ku ku ubbeeku la ku yaatu la ku xam àqi doomu aadama la. moom màkk dafaa dem ànd ak Assis Ndiaye day fa Macky Sall Macky Sall ñi fa dajal bari nañ ñoo xam ne ñu bari fatoon ak moom trafic d'influence yooyu naka yemal dakaar ndax moom politikul Touba Touba mën na fee dëkk am na fi kër yaayam boo xam ne bu ñëwee fa lay dal def di ñëw bu dee ay defee sorte fii la ñëw def fi sorte loolu mooy cause politique bu gën a noble mais paaka di dajale ay nit pour wan kilifa gi ne am naa nit wala nangam li nga am ay nit da ngay fexe ba say nit du ñu danañ waxuma la sax votel keneen mais dinañu ruusa sax di wax di la di la di la di la di ngay jëm fii ñuy jëm fii. durant campagne yi nag yaakaar naa boobaak léegi si ne ñëwu fii fekke benn manifestation wala lenn loo xam ne tudd na ko ci département Mouhamed fekk kon yooyu naka arrêté yemale ko dakaar loolu nag duñ ko mayati genn gone ñin amuñu lu suñ kilifa yi suñ kilifa yi def nañ lu baax di jàppale président il faut que tam maanaam loolu ñuy apprécier ko. man li ma gis te mu xam ne man moo ma gën a soke te gën ma jaaxal mooy président ñi ko dàq jàppale nekkuñu ci partem duñu politique c'est ça man loolu moom ma gën a jaaxal parce que kilifa gi xëy na xolom la ko yàlla fay foofu am na ñoo xam ne ay volontaires yoo xam ne bokkuñu ci partem joxu leen responsabilité dañoo liggéey seen alal mais teewul yow yow mi ñu jëflanteel heure bu ñu déggee problème ñu ngi lay woo téléphone nu mu demee nga wax ko bu laajee ñu génne seen alal jox la ne dama réglé ko bu ma tudd mais ñi ñu jox responsabilité mel na ñoom ay buur lañ ñoom dañ ko yeeyoo. bi ne ministre yi muy wax nag loolu yëpp Macky Sall la yëpp président de la République ndax en tant que président tànn ay ministre di liggéey te loolu mu naan am na 80 pour cent liggéeyuñ loolu waxu dëgg ndax 80 pour cent yi de président sax defu lépp kon ñoom mënuñoo def lépp munoo nag yow. yow nga ne dangay ngay jàppale président di xas ay ñooñam loolu loolu mooy ay lobby di tudd ay nit di leen tàgg di xas ay nit ña ngay tudd ñoom ñoo lay gérer ñi nga tudd séeréwun la kon koo tudd ko ku la séeréwu rek yow baaxul du ko baax te fii ministre yi ñu am ministre yu baax lan yoo xam ne ñu ngi jàppale président ci tous les côtés président di di fekkoon président jàppale wu nga président dañ leen fi dindi teg fa ñeneen kon donc ñooñu di leen félicité jàmm ay jàmbar la mais en tout cas am na loo xam ne du ñu bàyyi mu jàll parce que wutale président ak sunu wayjur Mouhamed ba arrêté sa lobby yooyu ak sa tappale yooyu nga nga yem Dakar mais fii loolu duñ ko nangu ndax ñun duñu liggéey ba toll fi ñu toll ay gone yu ndaw bëgg a ñëw fee fii sa morom néew ko fi ñun ay responsable yu jàppale président ban ngay jàppale 2012 ba léegi ñu ngi fi fekk na xamul woon da ngaa transmis ñëw ci parti bi kon du yaay ñu jox leçon de balle loolu moom moytuñ kenn ku ko defat dana attaay ndax bëgg dem gis naa ki ñuy wax Khadim Ndiaye ministre de commerce la jógee ñëw fii dégg naa di di séddale ay ceeb ak di naan rek dafa amul yoon ndax koo xam ne fu waay neex jóge fi ñëw ba. Moussa Thioune responsable politique si Touba nekkat du nangooti nag kenn ko jóge fee ñëw leen jox leçon de morale ndaxte bi mu méttee ñoo fi nekk fi mu métti ñoo ko xam ñu ngi wut solution bi ba lépp bëgg yemb ay nit ñëw bëgg ko récupérer ngir jaxase leen ak président Macky Sall nekkat loolu moom day dàkk.